li olof naan garab la mu meññ bu dee root ca taatu garab ga rek lay li nga xam ne mooy daayiratul Nihmati soppee Serigne Babacar si ci nga xam ni mooy Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin taxawaloon ko defoon nekkoon président d'honneur bi waaye soxna Kala Mbaye mi nga xamante ni moom mooy ki nga xam moo nekk ci bopp bi di yaay di yaayu daara ñu organiser tey bés bu nga xamante ni le 5 la le 5 kañ la 5 octobre fii nga xamante ni ci du Serigne Babacar Sy bi jumaa ji fi lay xewee di conférence nationale ñu koy amal ñaari at yu ne ren di la 5 ñu bàyyi rek soxna si nga xamante ni mooy soxla kara di yaayu daara di nga xamante ni taxawu na jeunesse su taxawu soxna yi nga xamante ne ñoo nekk Tiwaawan ba tey jii ñëpp yiw ñëpp jaar fi ñu war a jaar kooku mooy soxna Kala Mbaye ñu bàyyi ko mu sànni ci ay kàddu ñu dellusiwaat ci programme bi billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima ñoo ngi sant yàlla bu baax santaat yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nu mayoon ñu fekke ko mu may nu ñu fekkewaat ko yal nañ ko fekk ay at yu bari di nuyu waa senegal yëpp di nuyu mbooleem njabooti Cheikh Seydi xaaji malik la ko tàmbalee ci xalifa bi ak i rakkam ñoo ngi nuyu ñëpp bis bi moom xew-xewu diine la xew-xewu lislaam la waaye xew xew kër Seydi Hadji Malick la ndax sëñ Abdou Aziz Al Amin moo ci maye woon ndigal ni sag ñaari at na ngeen ànd ak daayira bi def benn conférence conférence boobu nag moo dellu siwaat ren le 5 octobre incha allahu ñu di ko def fii ci xadara bi di ko def nag ci suñu ndigalal kilifa sëriñ kër Sy Mansour bésu kër Seydi Hadji Maalik la waaye bésu ñëpp la ñoo ngi ciy woo ñëpp nag rawatina xale yi rawatina daayira kade yi di ci woo njaboot Seydi Hadji Maalik di ci woo muxaddam yi di ci woo taalibe yi section koskaas yi ñu ngi leen ciy woo fu présidente daayira ni ñu ngi lay woo ci bis bi nga xam ni bisu xadara bi la bisu kër Seydi Hadji Malick la waaye bisu jullit yépp la ndax Seydi Hadji Malick ñi dul jullit sax ci lan bokk waxuma ak ay jullit di bis boo xam ni nag dañ koo jël ren jagleel ko sunu maam alxaaji Mansour si bu seex Seydi xaaji Malick moom lañ jagleel bis bi kon daal bis bi moom ren fa tabaarakallaahu yàlla nañ ci dugg ci bismillaahi rahmaani rahiim génn ceeg alhamdulilahi rabbil aalamiina di ci woo jeunesse bi di ci woo taalibe di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bis bi daal bis jullit lépp la yàlla nañ ko fekk tànd bis bi nag ñu ngi ko dara jaale ki nga xamante ni mooy euh, monsieur Omar Gueye ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire ak ki nga xamante ni mooy Pape saw opérateur économique Kër Ndiaye Lo Alhaji Malick Diop grand mu muxaddam à Mbour ki nga xamante ni nag dañ ko ñi nga xam dañ leen ko dara jaale muy ñi nga xam ci suñu yaay yi muy soxna Ayda Si baax kooku di euh, doom ci maam Abdoul Aziz Si baax ak ki nga xamante ni mooy Adja Rugi Si présidente daayira Rahmati bu Thiès invité d'honneur bi nga xamante ni nag ñooñu ñooy ñi jar a bàyyi xel ñuy waa section Koskas bu Mbaaw bu ko defee ci ndigalu euh, Babacar Si soor ak ki nga di xalif général des Tidianes Serigne Pape Malick Sy di porte parole bi ak Serigne Maodo Sy Dabaax Serigne mbay si Abdou ak njabootu Seydi Jamil yëpp ñi nga xamante ni ñooy waa euh, njabootu Serigne si borom daara yi Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Maktoum Serigne Abdou Aziz Sy al Amin ak daayira neexmati yëpp. ñu ngi leen di woo bés boobu di le 5 octobre fii nga xamante ni mooy esplanade bii nga xamante ni mooy esplanade Serigne Ba mosquée Serigne Babacar Sy ñu ngi ci woo ñëpp incha allahu taala bu ko defee rek ni ñëpp teew ndax bés boobu bésu Sénégal gépp la wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ku xool li ñu fi wax lépp xam ni ki war a woote moo war a woote. ki mu ko war a tudde moom la ko war a tudde waaye ñi ko war a yëgal rek la ko war a yëgal ndax soxna Umu soom yàlla moo ko def ci xolu nit ñi fa tabaarakallaahu demul fenn mi ngi fii toog ci ruqam di liggéeyal maamam Seydil Hadji Malick waaye nag di liggéeyal maamam Serigne Babacar Sy ba am ci ngërëm ngërëmal kan Serigne Mansour borom daara ji ak Serigne Cheikh Tidiane Sy Serigne Abdoul Aziz bëggoon ko teg ko ci wetam di ko yónni fa tabaarakallaahu ànd ak moom mu jàppale ko moom soxna mu këlsoom bari na koo xam ni dangay dégg kalambay defa ni góor la ndax taxawaayam fa tabaarakallaahu kon nag soxna mu këlsoom loo dund doyul yàlla na yàlla may la ñetti téeméeri at ci barke Seydina sallam moom mii la sëriñ Abdul Aziz waxoon ni ko yow yaay yaayu daara ji ñu dem ba ca digg bi mu ni ko yow yaay yaayu daayira yi moo tax ma way ko ca waya ma ni kala yaay yaayu daara ji kala yaay yaayu daara ji kala mbay nanu ñaanal kala mbay nen kala sëriñ Abdu nee na kala yaayaayu daara ji eh kala yaayaayu daayira yee kala nanu ñaanal kala bay nen kala sëriñ Abdu nee na kala ji eh kala ku deele kala jaale na la yóbbu la makka nga na lela sa ëttu maam bi miin na la lu waay di def boole la ca jigéen ju mën góor soxna ka la mbubb mu mu sol la ca fauteuil bu mu toog toogal la ca oto bu mu dugg dugal la ca kalambay ni'mati nee nanu yow la waa koskaas yépp nee nanu yow la kalambay jàmmalaay kenn manu la ca gàmmu ndarge kenn manu la ca rakida bambay kala yayayo daare je kala mbay kala nanu ñaanal kala mbay len kala yaay soxna kala mbay maa ngi ñaan yàlla dolli la wér te bàyyi la ci sunu kanam ah kala yayayo daare je mbay